dañu doon fexe ba di dunde lu lew di dunde seen ñàkk maa ngi koy wax benn mbokk ñuy waxtaan mu naa ma jeg saaw nu mu tëddee jeg saaw bi ngeen doon dégg ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh leen jeg saaw mam El Hadj Malick Sy radiyallahu taala moo ko sos ba mu demee Màkka dafa ñaanoon ñetti mbir yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may suuf su lew boo xam ne dinaa mën a daan sama doole maag ñaam jaamu yàlla yi moom mosul wax diw sama taalibe maanaam maag ñi ma bokkal di dund sama nawle yi dundee lu lew maa ngi ñaan lu ñu nar a tabaxle ay kër nañ ma ko tabaxle ay jàkka maa ngi ñaan sama njaboot bi leen xamee njabootu keneen mais ma lay def saaw boobu doo gisee mu ne ja ju baax def saaw ju baax julli bay bay dundee bay dundee lu lew dundee lu sell moo tax tey ba li mu am lépp mën ko am donc soo gisee eh, tey li tax koy wax ñun suñu problème yëpp problème de référence la am parce que référence bi ñu jël yëpp mooy l'avoir xaalis am-am am nag suñ demee ba nga xam ni tey moo jiitu ay valeur am-am moo jiitu ay jikko moo jiitu xam-xam moo jiitu lépp réew moom dafay poser problème. donc li ma doon Habib maa ngi jël ay parce que dama dama dama changé même thématique bi pour adapter ko cible bi pour wax luñ mën a dégg parce que chiffres yi su ma ñëwoon tey di ñëw ci ay chiffres ay éléments xëy na du ngeen comprendre mais mën naa jël ñaari chiffres 118 milliards par an moom la réew mi ñàkk ci guerre xaalis bu ay nit lekk sa mënoon tabax ay hôpitaux mënoon tabax ay ay ay yoon mënoon tabax un centre de santé tey fii soo génnee am na fi dëkk yoo xam ni mënuñu am ndox ñu naan am na fi dëkk yoo xam ni mënuñu am zone fii dem cent villages cent cinq villages amul benn ambulance jigéen ñi suñu matu ci feebar ci de lay teg te soriwul donc pour montrer que ñun réew mi si boppam destin wu réew destin wu Thiès suñu loxo la mën a nekk man nag damay wax ni mag ñi dañu sànkar lii ñuy wax yëpp xam ñan la ñuy fàggalikul mooy xale yu ndaw yi parce que kër yi foo dugg jigéen ñee ko yore góor ñi retraité dañuy retraité ci wàllu administration mais duñu retraité mukk ci wàllu yore dépense yore njaboot bi ndax njaboot bi màgg nañu jàng nañu mais amuñu xëy te loolu lépp fruit mal gouvernance bi moo ko indi Il y a 118 milliards mais ñi ngi a 1200 milliards de dollars Dollars, bu ne ben bu 600 francs moi, xam mom moy dañu tax Tu at ci réew yi ci guerre ci corruption ci le mel non donc pour montrer que da ngay ne man sax da parce que si on a ngay ci soo xamee tey réuni, mi maanaam discours ni mu rafete ak jëf ji ni mu néwé ak ngeen baal ma caay-caay gi ni mu baree jubadi gi ni mu baré da ngay tiit parce que da ngay tiit da nga mais lii ñun xëy na mën nañ dem ñun suñu wàllum lépp mu wéy mais xale yi nga xam ni tey soo xoolee kër yi xale yi tranche d'âge bi presque plus de cinquante pour cent c'est des jeunes nga romb suba teel foo romb xale yaa ngi attaaya xale yaa ngi dem mais réew nag su demee ba nga xam ni les bras valides maanaam ñi nga xam ne ñàkkul njom mais gisuñu dem ba am désespérance parce que nit mën nga sax ñàkk yaakaar mu nekk rëbb désespoir mais su demee ba désespérance commencé ñëw sa désespérance bu dara lul nga dem a dem ba ñu dugal ci buntu bàmmeel sang nañ la sang nañ la yaa ci buntu ñu lay waaj ñu naan la non saa yi muñal kooku dégg nga ba pare c'est fort presque pratiquement da gis ñu bari fi ñu toll nii c'est des nit ñi leen rey stress mm-hmm. te stress li koy ni mooy tey nga dem a dem di góor di jullit li ma benn mbokk ne li tax réew mi euh, nit ñi war a wax ci war mbiru développement nu ñuy yokkee koom-koom nu ñuy lutter contre la pauvreté muy ma gis nga ndékki moo ci gën a baadoo la ndax ndékki soo fanaanoon rek musiba am mm-hmm. yow war a xale yi ne toog yaay mburu mi yaay café gi nooy def parce que am nga xëy dugg fii gars ñu naan am indi une heure heures taal mais c'est au quotidien soo ko dëkkee tey mu ñëwaat sa lu ko indi ba nga répartition équitable des ressources yàlla sax yemalewul ñii dañuy am ñii ñàkk question alal mais su ni li ngeen di cotiser li ma waxoon sànq fekkoon ni réew mi ni mu war a jaar ni mu war jaar ñu wàññi caay-caay gi li ma su ni fromage bi dañuy wala mais bi soo la ñëw te soo rek ñu bari seen ci faju ci santé ci wàllu éducation ci wàllu transport public ci am na koy comme sensibilisation aussi dañ koy tu as le santé. Ce sont beaucoup de gens. Il y a des études. Il y a des études. Il y a des études. 10 000 fois aussi. Mais tu as le césarien. Guerre de la fête. Et le crédit. Il y a des études. Si tu as accouché, tu as le droit de l'homme normal. Et le césarien, tu as le droit de l'homme. Parce que 700 000 euros 800 000 francs, Donc, il y a un programme de développement. parce que man li tax ma sawar rek lenn la bi ngeen nekk tant que yéen ci je que doomu Thiès yi je que nit ñi nga xam ne tey ay patriotes lañu bëgg nañu réew mi parce que man li may wax tey ñun wutuñu mandat xam nga su ma doon wut mandat damay bàyyi ba élection bi ñëw ma ñëw Bambara dinaa fi am au moins base mais wutuma mandat mandat bi soxla mooy mandat suñu borom mais li ñu gis xam ko dinañ fexe ba xamal ne leen ni nag tudd. Masamba wala Mademba hasuni, mais système de lañ wax ay nit ñi nga xam ñoy animé système bi nit ñu ci boppam tay ñoo dul nekkul ci logique de développement. parce que tay 2019 wax na leen mais xoolal li commencé am Sénégal fan waxtam yépp campagne bi commencé na. c'est dootul dellu gannaaw. fii ba ba ñuy dem 2019 ci élection yi campagne la ñuy nekk électoral permanente. légui nag Habib man foofu laay joxee conseil ni ngeen réseauté dëkk yi fexe leen ba y a une logique de développement y a gën ci continuer au moment c'est normal hein, j'ai des acteurs ni des politiques def politique pour camp suffrage mais yéen fexe leen ba yee femmes yi autonomiser autonomisation des femmes à amul lu dul leen activité génératrice de revenus ou leen ci de xam ne dina solidarité interne sous forme d'économie solidaire loo xam même revolving bi ngeen def lebal mini ñi du ñu fay mu am intérêt mais suñu joxee remboursé ñeneen liggéeyaat yi su parce que Dieu ñi ku leen taxaw taxawu réew ku taxawu jigéen ñi taxawu njaboot taxawu askan. sa jigéen ñi koo ci jox un million maa ngi koy ñoom ni ñu seen système wax si yeeg teg yi dans deux trois mois mën nañ la ko liggéeyal trois millions sans intérêt liggéey ko ñeneen liggéeyaat yi loolu rek mooy yoon wi nga xam ne tey moo yoon wi lew moo yoon wi dagan moo yoon wi gën maa ngi leen di baalu ak di leen sant di leen gërëm. mi toog ñoo leen di nuyu coordinateur Habib Kane ak suñu coordinatrice Aïcha Aw di nuyu bépp présidente boo xam ne yaa cadre de concertation pour le développement de Thiès di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu suñu euh, ki ñuy waxtaanal tey ki nga xam ni moo ñu defal intervention bu rafet bi nga xam Abdou Aziz Diop contribution bi may joxe mooy que ni développement buñ koy wax ñun jigéen ñi ñoo mën a jàppale suñu bopp lu ñu jàppale jàppale aussi tey jàppalewuñu suñu bopp duñu dem tey jus locale bii ñu teg ci kaw table bi ñun ñoo ko moom te quartier boo dugg am na jigéen ñu ko fay defar muy quartier yëpp ci Thiès te ñun jigéen ñi ñoo fi xew ndax góor ñi xewuñu buñu nee xew rek jigéen ñi la jigéen ñiy xew toujours ñoo ngi dem di jënd ay boissons yoo xam ne xamuñu fu mu jógee xamuñu luñ ko defaree te lii suñuy mbir la ñoo ko moom te xam nañ fu mu jógee ñun ñi koy defar xam nañ ñu koy defaree set na sell na wér na ci yaram boisson yi ngeen di jënd dama leen di jox benn anecdote rek man relais communautaire la dafa am ndaw suma dëkkal chaque jour bu doomam dee xëy mu jëndal ko boisson 100 francs ci bi mu dem ba biiram di metti mu yóbbu ko hôpital docteur bi xool ko bi mu ko xoolee xam naa ni xamul lu ko daal mu posé ko question xanaa da ngay jënd jus si boutique bi di ko jox xale bi mu ne ko waaw mu ne ko loolu moo ko sonal arrêté ko mu ñëw di ma ko wax man ko effectivement man sama doom si buy yi ak bisaab yi laa koy xoojal buy xëyee ma defal ko si guutam bu ma amul temps xoojal ko su ma xëyee ndox mii laay jël defal ko si guutam mu yóbbu naan du ko wàññi dara mais jus ba ngay jël da koy feebar may wax ni bés bu ñuy xewati nañu fexe femmes yi nga xam ne ñoo ngi defar yi ñi gis leen ñi defaral leen ay jus ñi servir ko nit ñi parce que yi ngeen di servir nit ñi te baaxul ak mi ngi si te yéen a ngi jox nit ñi loo xam ni ak la nit ñi ñoo koy consommer mais baaxul si seen yaram dee leen jël bii bii moo baax may laajaat fenn mooy sànq wax na ko si affaire jàng bi ñun moom dañoo am lu ñu jaaxal si suñu jàng doom yi te fu ma toog dama koy wax ndax euh, toujours dama koy wax jigéen ñi dañuy am habitude bu ñu amee soxla duñ ko wax mu jëm kaw dañ koy déeyante suñu biir nañuy wax suñuy soxla ñu mën ñu koo leeralal parce que dafa am benn phénomène boo xam ne dugg na si école yi te ñun ñu amul doole ñun ñoo yóbbu suñu doole yi si école primaire yi dama koy wax toujours ay cours VIP cours 1000 francs cours cour cours 10000 wax dëgg yàlla sonal nañu ndax nga xëy suba mënoo yor 1000 francs boo dépensé di wër di ko lijjanti ñu ne fayloo pour cinq mille pour dix mille metti na si ñun lool lool lool lool lool. grève bu metti bi ñu nekkee man bés bu ne dama koy wax ñoo tooñ seen bopp parce que dañoo dugal si seen xaalis lu lewul. yaay ja ma ngi koy joxe mais seetlu si xolam bàyyi ba danaan awma lu ma fayee pour dix mille. ndey day bëgg doom ja jàng bu ëllëgee mu liggéey jàppale ko moo tax muy fay pour dix mais du lu ko neex damay ñaan suñu mbokk jàngalekat yi. ñu fexe nu ñu dimbalee xale yi ci pri euh, école publique bi ndax bu ñu amoon lu ñu fayee ñu yóbbu suñuy doom école privée mais dañ koo amul woo tax ñu dugal leen si école publique bi ñu leen di ñaan ñu dimbale nit ñi ci cours yi ñuy fayeeku te jàngal xale normal ñoom ñii di jàngale tey bu njëkk dañ leen daan jàngal te ñu woon cours yooyu ñoom ñu woon cours yooyu te dañ daan jàng 8 heures midi 3 heures 6 heures li si gëna metti moy da ngay yoy ñetti xalé wala ñeenti xalé bu ki wacce midi ki wa war dugg 2 heures ki wara dugg 10 heures seeni heure du bok bo yekkee añ bi di nga timbal ñetti bol yo xamni dañ lay xaar té metti na lañ dimbale jigéen ñi sonu nañ trop trop trop stress do nga tax boy xol paralysé jigéen ñi ci ëppalé té stress mo leen ko def lañ ñu dimbale ci façon bo xam nga bu ngeen sétlo légui bi xale yi di perturbé léegi damaa mujjee jóg dem ci ñoom waxtaan ak xale ñu ne tekk toog di dëgg ndax li tax mooy ci fin wu mulaay wax na ko mooy xale yi ëllëg ñoo yor kon ñu nekk ñu jar suuraale dama leen wax léegi ne leen yéen dañu leen a déglu lii ndax ëllëg ñuy toog ci kaw taabal bi yéen ëllëg yéenay def te yéen da ngeen di jàng école xale doone rek dafa yaru boobu nañ ko bàyyi rek lu ko neex na def lu ko neex na wax li ñuy perturbé yëpp bi ma jógee waxtaan ak ñoom dañ ne teg parce que delloosi naa leen xam nañ ne li ñu wax dëgg la ñoom ñëpp ñu toog ci kon man li may wax mooy lii Aïssatou ba ngay wax dëgg la école yi dañuy jàngale éducation la éducation de base wax naa leen ko léegi xale yi ne la ñun ñëpp da ngeen jàngale kon ñëw leen ngeen déglu lii ñuy waxtaan waaye parents yi tam bu ñu toogee ak xale yi nañuy bàyyi xale yi xel ka ne xale yi dafa am lu nekk ci ñoom tey xale yi tey benn parole rek xale yi bu ñu leen ko joxoon tey neleen leen wax leen dinañu wax wax joo xam ne yow miy nekk mag toog ci kaw taabal bi dinañ la delloosiwaat kon xale jarul xeet ñooy nekk mag ëllëg man foofu lay delloosiwaat askan wi parce que ñun li tax ñu toog ci kaw taabal bi mooy ñun ay adjoint au maire lañu au maire ay conseil municipal lañu moo tax bi ñu ndikkee dañoo dalal gan ñi toog ci kaw taabal bi man maag Yacine ñoo bokk ndey ak baay en général bu ñuy dugg lu ne maag moom ñoo ci ànd dugg ci muy dina déggal nag tubaab fakal la macha allah waaye damay wax ne éducation de base su ratee ci xale rek lépp rate la kon mu laaj yow ci Mbambara nga dëkk yow éducateur la fii nga dëkk kon fexe leen ba nga xamante ne lépp loo xamante ne waa Bambara léegi léegi laa koy xale yi mën na ko yéen ñeneen dañ fee jógee ñëw fii am na yeneen kon yu ñëw fii tey ñëw ci yéen di leen seet si ñuy wax xale mbambara xale mbambara te xale mbambara ñun bu njëkk ñun fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee suñu kër a ngi nii fii ngeen toog itam suñu kër ngeen toog kon donc dig digal bii fi la yaroo waaye macha allah tabaarkalla dañoo am nag suñu yaay yi bu njëkk ñëpp nekk benn yar ñu yar bu rafet Pa Maxtaar Jóob bi papa yi mu laay nekkul fii benn xale nag ñamewul a def dara loo xam ne na ko si du ñor daayira bu ñu koy dem sax ñëppay kon loolu nañ ko delloo si waat ci mbambara yaraat xale yi bu baax baax defaat ci ñoom benn éducation bu normal te yéen ñii yéen wulaay yéen seen loxo waru leen ko génnee ci gox bi jëkk leen ngeen jàpp ci éduquer maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant man xadi yi ñu gën maa xam ci awalee jotaayu mbambara bi tey aw ma ci dul kontaante bu doy macha allah ndax koñ bi sama koña njaboot li samay njaboot lañu kilifa yi fi ñu nekk ñëpp samay parents lañu. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital ci cant bi ak gërëm bi Abdou Aziz Diop suñu sëriñ di ci teg Habib Kane di nuyu imam Babacar Diouf suñu waajur bu baax boobu di nuyu Aline Sarr tamit fii nga toog jotaay bi nga toog tey macha allah sa jotaay la mbambara Aliou gi sa mbambara la kër yëpp ñaari kër ñett yu ne am na loo fa def ñaari kër ñett yu ne am na loo fa teg nit ñi ñëpp am na foo ñu teg. yow kenn du la présenté Bambara ndax yow yaa moom Bambara te bu doon élection bu ñuy woote rek tey jii yaa koy gagné Habib ñëw wallaahi lancim lu caaxaan Habib kan mi ñëw dàbbali ko mu gën a neex kon nag seen taxawaay seen liggéey dafa lëkkaloo sa liggéeyu Alioune Sarr ak liggéeyu Habib Kane dafa ànd méngóor lëkkaloo ndax ndax Alioune Sarr daara rek moo ko ñor taalibe yi rek moo ko ñor xale yu ndaw yu jigéen ñi rek ñoo ko ñor looloo tax ba nga ko woowee ca Samsu mu ñëw wuyu la ci loolu ñun ñii nga xam ne tey jii ñëw nañ fi toog fi sànq ba tey bàyyi suñu yitte yëpp ngir yow sa woote bi yow amit dafa di woote boo xam ne bi dafa am njëriñ gis nga quartier bi fii maa ngi nuyu sama mbokk municipal yi fi nekk man municipal la Seyda la ci quartier bi fii ñeent fukki at maa ngi jàngale ci quartier bi fii ñi fi toog ñëpp tey ñenn ñi maa jàngal seen baay yi ñenn ñi maa jàngal seen yaay yi jàkka jaa ngi nii ci poste de santé ten ba tey filaay xëy filaay gont jox nañu ma cër joxante nañu ay cër yow Alioune Sarr sa loxo mu ngi ci biir jàkka ji mu ci jumaa yi mu ngi ci daara yi sant nañu la gërëm nañu la sa ndombal tànk boobu ñu la takkal yàlla na jëm ci kaw a kaw a kaw a kaw yow Habib sa woote bii nga woote yàlla na nga ci gis ndam te incha allah di ci am ndam ndax tey jii Adja Maguette Fall municipal la muy fi ci kër gi ci koñ bi Nourou Camara këram ngi nii waa réew mi la municipal la Cheikh Tidiane Lo la ne Khoudia mi moom la man mi moom laa Ibra Lo koñ bi yëpp ay municipal lañu waaye nag ñun képp ku ñu woo ci lu baax dañ lay wuyu si ci lu baax amuñu luñ ci rus amuñu ci lu nëbbatu ndax dañoo woo ci lu baax lu rafet Modou Lamine Sankara tamit mu ngi fii ku ko déglu gis nga ko lii Habib di def fii di ko jàppale jigéen ñi Mamadou Lamine Sankaré politicien la waaye mu ngi def lu mel noonu ca këram tey jii ñun ñi ku ci am xew lu xew ku ne la ngay dolli ci la ngay jële kër Mamadou Lamine Sankaré lu ndaw la pour nga dolli ko ci sa xew dem kon su ñu amee ku mel ni Habib am ku mel ni Mamadou Lamine Sankaré am ku mel ni Sarr mi ak ñeneen ñu mel ni ñoom léegi ndoolu jóge ci dëkk bi ndax kenn ku ci nekk ci la ngay yëngatu yaa ngi ci gis sa bopp kon nag fii suñuy njaboot kese ñoo fi nekk man mii amoon naa yeneen yitte yi ma waroon a dem waaye Khoudia Ndiaye mi sama rakk la moom sama rakk ñoo doon ànd ñoo maa si nekk xale yi tuuti ma yar leen ci sama kanam boobu ñii ñu ngi nàmp moo tax bi Yacine jëlee ne moom moo koy def fii teguma ci baax damaa xam ne war naa cee mën a ànd ak moom te sama woote sax fii la sama tiitar gën a nekk ndax fii laa yaroo bi ma nekkee àll bi di jàng Ousmane Ngom bii maa ngi dëkkoon fii boo jéggee tali naa fi ñeent fukki lépp fii la a bàyyaa ku njoba jaan sama kër mag kon man fii mooy sama tiitar man tamit lépp lu ngeen fi woote soo ba jant soo ànd naa ci ak yéen te incha allahu rabbi affaire si bi nga wax tamit loo am solo la képp kuy xewle rek ci ñun war ngaa mën a jël lii nga jëfandikoo ko mu gën a dox ci suñu biir Pape Mokhtar Diop dañ koy ñaanal yal na ko yàlla defal njëggal ak yërmande yal nañu yàlla taas ci ma ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Habib kat yaa xam foo jëme seen réseau bi yal na ko fa yàlla àggale ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow koo woot dina la wuyu. maa ngi jéggalu kàddu yi may yëkkati bu baax a baax dañuy apporter rek suñu contribution ci waxtaan bi nga xamante ni suñu sëriñ suñu soppee suñu xarit suñu nijaay doon na ko def muy Moulay Aziz di wax ci corruption que ni loolu mënu fee jug mënu fee jug. ndax dañ koy nangu saa su ne man mii toog nangu naa ko ci hôpital régional li taxoon mooy dañ ma jam ci sama loxo bii muy xottu biteel tombeeg jour korité biñ ko fa fekkee mu ne fil à surir amul maanaam li ñu war a loxo bi amul te jënd nañ tikke urgence 5000 francs ba pare mu génne ci poosam ne ma waaye yor naa ñaar dama koy jaay 2500 benn bu ci nekk dañ ko jox mu def ñu mais liñ naan dafa waroon weeru far yàlla ndekete bàyyi na xottu biteel ci biir ñëwaale ko loxo bi dañ koo mujjee meese naroon nañ ko cee porter plainte mais yàlla def ci sutura ñu jéggal ñu jéggal leen beneen bi kilifa bu mag moo ñëw Thiès dégg ni maire yu bees yi ñu ngi fi bëgguma tur tudd turu maire ba aussi moom mu ne dafa am ay marché yu mu indi ci dëkk bi pour jàppale dëkk bi man maa jàpp ci loxoom yóbbu ko ci ki nga xamante ni moo nekk ca domaine boobu yoroon service des marchés bi mu ñëwee toog ñu waxtaan ba juboo dafa génn ne ma fay ma ne ko am ah, mu ne ma Thiès du dem mu ma ne ko ndax lan mu ne ma waa ji 10 millions la ma laaj pour mën pour ñu mën maa signer donc corruption du fi dem mais ñun ñoo ko war a bañ corruption bi gën a garaaw nag mooy ñun bi ñuy def kuñu gis ni jug nga am nga xaalis ñu dem ci yow ne la yow lañ àndal am nañu mbooloo présenter ay nit présenter ay feu kon ñun ñooy def corruption encore une fois kon nañ ko bañ parce que loolu ñuy lekk ñun kese bàyyi ñeneen ñi àq kon war nañoo xoolaat suñu bopp bu ñu kenn nax ci dara mais aussi di remercier suñu frère monsieur le coordinateur Habib kan donte le nee na buggul ku koy gërëm mais ku def lu baax dañ koy wax ñun ñi nga xamante ni ay ndaw lañu nekk ci cadre bi ku ci nekk ci ñun utal na la moto jox la ko ne la ngeen di liggéey di joxee ci cadre bi pour le développement de Thiès fu ngeen war a dugg dugg leen fa ba pare jox ñu ay bon essence nañu moto bi dee leen ko ci def donc dañ koy gërëm ci loolu vraiment bëggoon naa ngeen tàcc ko bu baax a baax di gërëm aussi euh, suñu directeur monsieur Alioune Sarr xawma mo jik cadre bi xawma cadre be ko jik waye yàlla nomba tanki gëna gën ndax su yokkee Cees yokk ndax mom su yokkee rek Cees yokk ki xalat ñi nga xamanteni ni mooy taalibe yi kii xalaat ñi nga xamanteni moy ñi fanan ci mbedd koku dafa war am lu muy suturloo ndax su ko amé bok ko ñooñu comme monsieur Alvin Sall ñu lay nuyu bu baax alaykum wa rahmatullah parce que rew mi ñet ñi lañ fi soxla des dirigeants wala des leaders fu ñu mën nekk rek nañu nekk d'abord ñu patriote bëgg seen réew so loolu l'islam la xubul watani minal iman bëgg sa réew ci liman la bokk nañu nekk aussi ñu intègre nekk ñu mandu mais nañu nekk aussi ñoo xam ne dañuy compétent soo jëlee maçon jox ko liggéeyu menuisier doo ci am li nga bëgg soo jëlee tailleur jox ko liggéeyu plombier doo ci am li nga bëgg mais alune li mu nekk ci xale yi mu nekk waxuma la passion bi waxuma la sacerdoce bi mais je nan ko mën a sax dafa dem ba nga dafa mère Teresa xam nga ni ñu mère Teresa moom dafa père Teresa père Teresa mais père Alune. vraiment c'est vrai ci ci ci ndax taalibe yi xale yi yërmande parce que bari na ci ñoo Sénégal ONG ONG organisation non gouvernementale comme le forum civil ay rado mais ay ING individus non gouvernementaux ño xamni dañuy fekk ndol bi wala wala daara yi wala Ebola bi lu xew ñu fonds pour mais enfance ci ci ci je pense que def na ci liggéey boo xam ni sax xam ni defu ko ngir bëgg ku ko fal ngir bëgg ku ko tag mais ngërëmal sunu borom parce que ay valeur la ci lañ ko meññantal du ma ci sori alun ñu ngi lay dalal am kontaan trop wax nañ ñu yépp yi fi jiitu waxtaan yu am rafet ñu jox la tam kàddu ngay dugal parce que ñu ngi doon waxtaane tey walu corruption ak mal gouvernance parce que thème bi cadre bi mbiru développement la donc ñu indi li nga xam ni comme dañuy wax ci développement ñu nekk dans un pays sous-développé depuis plus de 58 ans 60 ak léegi ñu xool yan yoon la ñuy jaar pour génn ci mal gouvernance boobu sa yoon yooyu il faut nga identifier causes yi dont la corruption et dans d'autres kon euh, ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di di féliciter sama yaay yi sama soxna yi sama sëriñ yi ñoom awali maanaam jigéen ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a ah, di leen gërëm di leen sant yi tamit si yéene yi ndax yéene kese la yàlla di mottali ah yéene bi ngeen ñu yéene woon ñu gis ko seen xari kanam dégg ko seen làmmiñ ah yëg ko tam si seen xol moo tax ah, yàlla dëppale ah, loolu dinaa ndomb tànk bi ñu jox ak jakarlo bima jakarlo won ak yeen ak na jakarlo bu barkel lolou motax ah lepp luñ ci am dañ koy bok. len ci sakku ñaan xam ni tamit ah du luñu yotu ga du luñu don sentu it waye yalla dafa def fi lañ ko tambalé Thiès suñu démé ben ah nañ ko yaatal ci Sénégal yépp ah dañ koy tàmbalewaat Thiès ànd si ak waa Thiès ah, mu nekk tamit loo xam ne suñu fierté lañu ñun ñëpp di si gërëm Habib loolu moom toujours moo tax sanq bi may woo dafa am suñu benn mag benn kilifa bu wàññeeku am ñu ñëw di ko jaale ji ba léegi ñu doon dalal délégation yi dafa am ñu dem léegi rek mu woo ma ni ma nag sama xarit Abdou Aziz moo fi nekk ma ne ko baal ma nga guddal affaire bi tuuti rek ndax ma fekk si tuuti <laughs> loolu bokk na si li tax ma bàyyi lépp daw si pour euh, nuyuwaat leen euh, feddaliwaat tamit kóllëre bi gën a woon Habib tamit que li mu nekk maa ngi ci wetam ndax amuñu ñaari kàddu dañu na am benn kàddu loolu tamit moo tax ñu ñëw euh, Aziz nag laa di tax ma gën a yàkkamti déglu waxtaan mooy en général duñu xam ne ñu am lan la parce que li muy wër di ko waxtaan Sénégal yëpp koy déglu su génnee ci télévision bi sama waa ñoo naan ma papa daw si <laughs> ndax xam nañ sama diggante ak moom ak aussi li may jàngee ci waxtaan parce que bu ñu amul ñoo xamee ni la ñuy wax dañ koy teg ci iman maanaam da ngay yëg ni kii li muy wax daf ko gëm waaw wax daf ko gëm ndax wax dafa euh, yomb dégg nit ki dina wax li muy wax du la àgg fenn parce que di nga xam ni si làmmiñ bi rek la jóge nit dina wax nga xam ni si xol bi la jóge waaye àndul ak li mu xalaat nit dina xalaat lii wax lële waaye nit ki xelam xalaatam ak xolam ànd warowuñu ñu déggoo bu ko làmmiñ bi génne day rafet Aziz nag si loolu lañu xam ci moom ndax maa moom dañoo yàgg dañu bokk sax école bokk daara bokk lépp ndax euh, waajuram euh, daf ñu daan uuf man mii waaw sama mag bi dëkkoon foofu alaaji babacar gueye moom xam nañu digganteem ak góor gi kon daal loolu laa ñëwoon pour feddali ko muy coloré googu ni leen liggéey bi ñu tàmbali ah amatuñu droit sax mu taxaw wala mu dellu ginnaaw loo gis nag si benn lay commencé dina metti dina jafe waaye dëgg kese moo ko laal moo tax looloo tax ma ne woon Aziz lu ngeen organiser Habib ah damay ñaan yàlla mooy ñu wér ñu fekke ko loolu nag lay ñu feddaliwaat tey ak fu ñu mënti nekkit kóllëre googu dañuy ñaan mu sax loolu tamit di ko jaarale sama présidente moom directeur gi ma yàgg a wax moom foog naa ni moo tax ñaan ngoogu dafa ma topp ba léegi rek Aïcha moom it mu nekk nit ku ma fonk nit ku baax koo xamee ni tamit lii lañ ko xame kon ñu bañ a guddal ah li ma bëggoon mooy am naa ko maanaam déglu tuuti Abdou Aziz ci xam-xam gi muy indi ñu jëriñoo ko yàlla def li muy yëngatu ci forum civil ñun ñépp ñu war a nekk ci ginnaaw jàppale ko ci xeex boobu parce que Thiès loolu la ñu war a joxante loxo la ñu war a def joxante loxo ñun ñëpp fu Habib taxaw gis fa Aziz fu Aziz taxaw gis fa Aïcha fu Aïcha taxaw gis fa Alioune Arma ñëpp taxaw Thiès waaye dañu war a joxante loxo boobu te moom mi am nañu yaakaar boobu ci moom. Ah tamit euh, li may wax ci Aïcha rek moo ñu topp ndax léegi thème bi ñuy tuddee mal gouvernance ci mal gouvernance lay wax. ah ministère boobu ñu ma yóbbu it ministère la bonne gouvernance la <laughs> kon kon dafa mel ni Aziz léegi ñun lay contrôler <laughs> loolu it ñu rafetlu ko bu baax mu nekk partenaire boo xamee liggéey bii ñu ma sas moom it bu may set ndëgër lay ah moom si ñu ma gën a jege ñu ma gën a wóolu lay bokk kon daal ñu bañ a ko dël ñu ngi leen di delloo njukkal di leen féliciter lépp luñ ci am yàlla nañ ko bokk lu ñu mën a am cër bu bokk ci réew mi waa Thiès am si wàll fu mu mënti nekk nañ dem wuti ji ko indi ko. école publique kenn waru ko utiliser à des fins privées su ma waxee loolu mooy mënoo jël lieu public yow jàngalekat bi ñu lay fay état moo lay fay xale yi ngay jël cours de renforcement yooyu soit APE bi mën ko jël wala comité de gestion bi wala ay partenaires mais soo defee ay cours privés.

waajur bële di la fay mu gis ne xale doom bi mi ngi yokk doomam mi ngi yokk alors que yow ñu ngi lay fay loolu moom texte la il est formellement interdit l'utilisation des locaux publics à des fins privées mais xam nga Sénégal day àgg foo xam ni comme ni ma sànq rek dañuy dem ba ñëppay gëm c'est-à-dire foo ko laal foo laal mu metti parce que jamono bi mooy jafe ba nga xam ni maa ngi koy wax sama benn xaritu jàngalekat ma ni ko cours de renforcement yi di quelque part mën nañu sax c'est des cours de survie survie maintenant pour mort. mais l'autre dal là, ci am comme tantôt pour sa question soxna Awali mom indi contribution bu am solo mais soxna Awa man fi ma lay ñaax rek Moy waxna ko dañuy tabax ñun mag xam nga ki nga xamni bi nga ñu ne Aziz

xam nga kooku donc du mbiru askan mbiru jikko la donc soxna awa foofu laa bëgg aussi yaa ngi wax daara ji 40 ans mais soxna xujja maa ngi jégalu de xam naa sant bee tax sax njaay bi soxna xujja ma ni éducation parce que comme ñun dañu sànkar xam nga man ku mel ne Abdou Aziz su fekkee dama doon sàcc damay continuer yombul pour mu dañ su dee dama doon fenn yombul pour mu dañ à 50 ans mais xale bi am ñetti temps ñetti at jëm juróom-ñaari at yaakaar naa foofu tamit yéen gën a góorgóorlu àllin mi ngi ci nekk yow yaa ngi ci nekk ñeneen ñi ci nekk mais ñu gën a tabax ci ñooñu pour ëllëg émergence croissance développement durable mën nañu ko atteindre si Alinguer maa ngi kontaan parce que lii mooy waxtaan ñun fii li ñuy wax inventé wuñu suñu gënuñu kenn dañuy wax li ñuy dund sa doomu aadama moo am ak malaaka ak mala nit yàlla daf ko may xel ak bànneex mala amul xel mais am na bànneex malaaka am na xel mais amul bànneex mais doomu aadama rek mooy jël quatre-vingt pour cent wu bànneex ak vingt pour cent wu xel soo ko defee rek xel gàtt maanaam mooy tey bëgg-bëgg ak lu dul noonu maanaam jikko yoo xam ni du jikko yu tedd mais loolu lépp aussi dangay xam ni yàlla moo bindee noonu doomu aadama dama ko wax benn mbokk ma ne ko ëllëg ñun ñëpp incha allah ajana ñu xaar ndax yàlla yërmandeem dafa jiitu maanaam su defoon ci maandu tem suñu réglé mu musiba am mais dañuy juum di bàkkaar di rëcc mais loolu nga wax tey danga ko def ndax circonstance ndax nga ni mës naa ger man mii di wax tey mës nañ maa ger mës naa ger am na loo xam ni doomu aadama kenn mëtu ci échappé mais da ngay fexe ba nga xam ni. lii def naa ko xam naa ni baaxul naa ko rëccu naan surutu tawbati anadamu chartu tub soxna xujja def naa mooy loolu nga rëccu li paase ne fas naa yéene duma ko def yàlla ba jéggal la